comment se fait-il bis boo xamante ni saa waay nee nañu lii et Dakar bi nga xamante ni jël nañu ñaata milliards def ko ci ay caméras de surveillance et bizarrement zone bu amul caméra de surveillance kese zone boobu nañu déggee attaque est ce que ñu ko def xamuñu ne foofu amul caméra de surveillance. waaw loolu aussi question la loolu loolu aussi question la mais je pense que vraiment mbir mi daal li muy gën a wane mooy ay question yoo xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy am te yaakaar naa ni ñu bañ insulter aussi intelligence su yaakaar ni da ngay toog wax benn mbir rek nit ñi gëmal la ko loolu amul fenn te je pense que ni euh, nit ñi war nañ leen ko ci réseau yi. très bien Pape ñun du ñu ay du pas notre rôle on pas de faire le travail à leur place mais moment bii li ngay question que de réponse am na ñu ne également ci question yooyu ba tey que di su fekkee ne yenn réew yi nga xam ne dañ fay gis ay actes terroristes su amee képp koo xam ne blessé nga fa ñu yóbbu la hôpital doo ñibbiwaat il vont te garder à l'hôpital wala ñu yóbbu la entendre la au moins mais la li nga xam ne moom la médecin yi wax nga rapporté ko sànq mooy ñi fa ñëwoon blessé ki fa gën a yàgg deux heures temps la fa def est que yooyu également du liy semer un peu euh, doute bopp yenn Sénégalais yi. mais Moustapha gën a yéeme. Mm-hmm. li gën a yeme mooy le BABA soo liiree un peu en charge des attentats terroristes boo ko xoolee sur Google tout de suite. mu édifier la le BABA. mooy la première chose bi nga xam ne moom nañu war a instaurer mooy une cellule de prise en charge psychologique la première chose. Amatar a bien fait de rappeler que effectivement le périmètre du crime le lieu du n'a pas été sanctuarisé. sanctuariser mooy ñu defar ko ba kenn du fa dugg ba nga xam ne waa kenn du fa dugg parce que tey jii le problème c'est très léger. Mhm. que ministre bi ñëw. Euh, chauffeur bi ne ko euh, cocktail molotov la moom mu gëm ni que cocktail molotov la qu'est-ce qui nous dit que ce n'était pas un gaz bi nga xam ne division baa ngi continuer mu ngi continuer di diviser ay relam mu ngi continuer di diviser peut-être que ñi fa nekkoon mu mun leen infecter. parce que chauffeur boobu li mu njëkk a wax mooy flamme. waaw flamme la wax mu ngoog. xam nga ku nekk ci ñun mën nga xool luy takk nga ne flamme. flamme la mais est-ce boobu lan la c'est ça la grande question. donc tey jii bu doon un produit toxique bi nga xam ne dafa continuer di diffuser wu mooy kon donc ñi fa nekkoon ñëpp. musiba naaru laay mooy mooy questionnement yi ngay wax toujours ci questionnement yi. Mhm. mais euh, Moustapha le drame le malheur avec le ministre de l'intérieur Antoine Diome mooy dans l'histoire du Sénégal c'est le seul ministre de l'intérieur opérationnel. moom mooy def liggéeyu alkaati yi mooy def liggéeyu OPJ yi mooy def liggéeyu ministre de l'intérieur et quelque part même des fois mu dugg ci liggéeyu magistrat yi dañuy fàttali Pape Matar a souvent l'habitude de le rappeler mm-hmm. bi fi reyee gune gi fële ca Yoof euh, Ngor ci manifestation yi fi amoon ax booy bi ñu reyoon fii euh, Kër Mbay Fall mm-hmm. xaarul le procureur de la république parce que fii ci réew mi tamit on est dans un pays de droit dafa am la nga xam ne ku ci nekk yow sa rôle la xaarul procureur de la république génn wax ci mbirum kii dee ak les causes de procureur balaa moo wax ci kii dee ak cause décès dana xaar li ñu naan certificat de genre de mort bu médecin def mais moom communiqué bi mu njëkk def mooy ke ca Ngor xale bu jigéen ba. Elisu Bato xëy na. xëy na Elis Elisu Gaal. kële ca euh, Kër Mbay Fall dañ koo jam paaka. xale xale bi dee centenaire barki dem également il a pour dire pour la woon moytu pour par dal ci benn. tey ji mooy moo tax ma ne c'est quelqu'un d'opé d'opérationnel cest à li nga xam ne mooy liggéey da nga koy gis sax. bu police ak gendarmerie di def laaful moom mooy taxaw sax di wax gars yi fu ñu war a laaf fu a dugg ak fu ñu war a génn moo tax ma ne c'est le ministre l'intérieur opérationnel est-ce que du est-ce que du du li mu nekk magistrat moo tax. oui mais c'est encore plus dangereux. non je veux dire il garde les habitudes d'un magistrat quoi. oui mais c'est ça qui est dangereux Moussa Ba parce que munoo nekk à cette station du ministère de l'intérieur de la place Washington bi nga xam ne. mais un magistrat dafay respecter la présomption d'innocence oui. mais bien sûr. bien sûr mais moom il fait tout ça c'est c'est là c'est devient un danger. pour tous les citoyens. parce que boo xoolee. Euh, <coughs> euh, gestion comme je dis. Mm-hmm. parce que yéen yi on peut dire quelqu'un est incompétent parce que lañ la dénk mënoo mais depuis les événements de Adji Sarr. Mm-hmm. on voit chez ministre de l'intérieur un développement permanent de carences successives c'est des carences parce que xam nga gis nga dañuy tafa Moustapha mm-hmm. gis nga terrorisme yàlla bu ñu ko dund Sénégal yàlla nañ ci yàlla musal parce que ça c'est ce que je dis c'est un cinéma sans pellicule gis nga Pape li nga wax xam nga si c'était sérieux si c'était sérieux avant même que le ministre de l'intérieur di ñëw le procureur mooru ñëw taxaw ñu teg comme ni nga wax sanctuariser ko détourner contourner circulation bi police scientifique ñëw ñu jël ay truc waaw damay laaj car amoon na chauffeur amoon na receveur mais un bus bu ñu ci sànnee cocktail molotov receveur bi moom dañuy am ku laq ba calciné mais le receveur devait être cal parce que moom fa mu nekk li xale yi naan sekku kaafu sekku. Hmm. balaa moo génn. génn bi ci ko xam luy cocktail molotov dara jotu ko. chauffeur bi en le voyant parce que nous nous sommes des nous sommes des communicants nous nous nous nous nous nous analysons l'image. Hmm. quand je vois le chauffeur parler j'ai regardé son visage il avait l'air placide. dafa doon ree quelqu'un boo xam ni tu as l'impression que il est heureux quoi. alors que dans il y a deux morts et sept blessés yoo xam ne ci chauffeur wax ainsi de suite mooy daañ certainement daañu ci ñëw sur la publique ce qu'on cherche 48 heures 72 heures après l'arrestation de leur principal opposant on succède ou bien on se fait succéder des événements tragiques D'accord. et parmi lesquels euh, non, non attends Pape nga daaneel mu yàlla yàlla musal comme dit Pape Amadou Gueye. Pape daaneel non non pas du terme mais qu'on respecte les Sénégalais Moustapha. vous savez hmm. boo xoolee image yi xew Afghanistan Iran Irak Libye Niger euh, Burkina Faso on te montre des restes ay nit ñoo xam ni ay tànk ngay fekk ay nopp. gis nga bu doon lii dëgg la Moustapha je vous le peuple bi ci boppam boo génnee tu sens le deuil national mais tey boo génnee. waaye ban rassemblement xoolal daara man bi may ñëw comme d'habitude moi je prends le car rapide je ne prends je xoolal xalaatuma sax ni daañ parce que c'est du cinéma sans pudeur. yàlla nañu ko nit dundee noonu. non mais quand même alors Pape Pape ñu daaneel Pape. non non euh, je je je mhm. euh, dama ne ko mu faire sienne de li mu doon wax. Mhm. du haut de la place Washington. mu ne dafa ne mu ne je survole le Sénégal. il voit tout si je voulais faire casser la république je fais casser la république c'est-à-dire pour te dire dooleewu ministre de l'intérieur mooy maanaam ministre de l'intérieur warul dugg ci yenn détails yi maa ngi fàttaliku xaw ma kan ko am na ko ko doon fàttali démb bi mu naan jibo euh, feu jiboka mhm. ci wàllu mu charge din mu ne la seule erreur que j'ai commise durant tout mon parcours c'est de mettre initié dans une association ou dans comme ou bien un parti politique. parce que ci moom lañ dissoudre voilà mu ne parce que l'État n'a pas à s'initier dans le fonctionnement d'un parti politique ou d'une association loolu mooy justement pour dëggal li Amadou wax tey à travers cette communication on sent que Antoine Félix Diome cherche encore à faire peur aux Sénégalais mooy benn parce que boo xoolee depuis 2021 c'est très important mm-hmm. ministre de l'intérieur yi fi nekk jaar nañ fi depuis 2012 bi fi président Macky Sall nekkee amu ci kenn ku mus a taxaw xool les dans le blanc des yeux les traités de terroristes ou de y en a pas ou de force occulte ou y en pas mais moom il a franchi le Rubicon depuis 2021 ba léegi nag affaire bi day graduer day yokk tey par rapport à la situation bis bi c'est un acte c'est c'est un acte criminel nous tous c'est-à-dire qu'il y ait on condamne l'acte tous les Sénégalais le mm-hmm. mais léegi le problème qu'il soo jëlee euh, lii fi lii xew ci période boobu ñu ne tëj nañu Ousmane Sonko mandat de door ko ay charge huit charges yi nga xam ne kenn mënu la wax nu mu dey mm-hmm. ñu ne dissoudre nañu parti bi au même moment euh, monsieur Mbodj laa dit tantôt Euh, la modification de la loi 65 60 bi nga xam ne fii wax nañ ko fi ba sonn nekk si les partis politiques ne font pas attention un à un ku ci àndul ak nguur gi daañu la traité de terroriste daañu dissoudre sa parti effectivement il a raison donc tey ñu xool loolu Moustapha ci période boobu ñii naan dissoudre nañu Pastef on nous parle d'un bus bu incendié et automatiquement on convoque le terrorisme mmh. automatiquement on fait pointer le regard ou vers Pastef naa ci ñëw léegi alors soxna Amina euh, Diène alors euh, euh, sénégalais yi quand même ñëpp d'accord nañ ci autour de cette table là que te xam naa ni ñu koy xalaatee ñuy seetaan noonu la koy xalaate li xew yaraax quand même c'est un grave ak nu ko mën ci nu ko nu ko mën ci tuddee nag lan nga comprendre alors doute yi nga xam ne moom la sénégalais yu bari di émettre. parce que soo dégloo ñi ñi wax fii euh, impression bi nga am mooy les sénégalais euh, autorités yi dañu am problème pour convaincre leen que ne lii moo fa xew pour yow lan mooy expliquer ces doutes là. waaw xam nga la état bi. bi ko peuple bi weddee dafa yàgg. donc te loolu bu xasee ba am. donc kàddu euh, état bi la. ah waaw